li ma fi indi tey mooy acteurs yi seen bopp ñoo dajaloo fas yéene acteurs yi Soumbédioune ñoo dajaloo fas yéene defar seen quai de pêche nettoyé ko. jeunesse de Dakar Plateau ñu ñëw indi seen doole ñu ngi gërëm le maire de la commune Ousmane Ndoye ñëw ak ay nitam ak dooleem wax ni lii ñoo ko moom ñoo ko mën a defar. xam nañ nag li fi indi salte bi géej gi boo ko joxee lu baax mu téeku boo ko joxee lu bon mu delloo la amul sikki sàkk du dëgg kon nag canal bi fiy déversé danaa ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité buñ ci mënee def un degré comme noonu ñu def fee ci ànd foog naa ne dana ci baax loolu dañ ko waxtaane du dëgg fàttali itam ni canal yi souvent damay dégg waaye mairie itam dañ koy war di curer. loolu it seen responsabilité la du dëgg kon yooyu bu waxtaan la laaj surtout boole suñu doole bu dee sa sa doole matul sama bos matul buñ ko doolee buñ ko boolee day da xaw a yokk may fàttali rek ne daaw defoon nañ opération bu mel nii waaye une semaine après liñ daan bañ liñ doon wax amul suivi amul suivi mbalit mi dellu si na li ma dégg nag jaraaf bi wax mooy dégrilleur bi foofu la salte yi di jógee di ñëw di ko yóbbu géej muy dellu siwaat ci plage solution bi mooy ñu defar degriyeur yooyu bu ñu ko defaree itam jigéen ñi nga xam ne ñu ngi fiy liggéey di fi daan seen doole di waas jën salte yee ñu gis côté bee nee nañ ay waasintóor la kon war nañu ut solution boo xam ne xëy na danañ leen utal ay bac yoo xam ne buñ ko ci defee ñi koy soxla di ko def engrais danañ mën a ñëw di ko jël di ko yóbbu bu ko defee plage bi dootul salte li ma bëgg a wax rek mooy ñi dëkk fii wala ñi fiy liggéey ñoo mën a assurer suivi bi ndax état bi ak maire yi mënuñu assurer loolu nit ku nekk gox ga ma nga dëkk yaa ko mën a surveiller yaa fa mun a taxaw nekk fa sa santina lu bopp ndax sa environnement nag yow yaa koy sàmm yaa koy aar pour sa njaboot ak ña nga bokkal place boobu bu fekkee ne ñi fi nekk ñi ngi bàyyi seen bët ak seen xel ci loolu organiser wu plage bi mun na set wecc wecc wecc question organisation rek la kon nañ continuer sensibilisation bi ak conscientisation bi xamal nit ñi ne yow foo dëkk dafa war a set ngir sa ngër gu yaram wër gu yaramu ña nga fa nekkal ak sa wër gu mu njaboot kon daal wax dëgg yàlla maa ngi leen a ville de Dakar mi ngi seen wet lii ñu wax nag ci canal bi affaire dégrilleur boobu danañ fexe ba defar ko danañ fexe itam ba seet ni ñuy waxtaanee ak yenn autorités yi pour ñu mën a ut ay bac yoo xam ne danañ ko teg fii waa seen tóoru jën yeeg yooyu yëpp ñu ko jëy loolu yëpp organisation rek la te yaakaar naa ne ñi fi nekk am nañ pas-pas boo xam ne dinañ jublu ci loolu.